def fi nag liggéey bu am solo boo xamante ni xam nañ ne waa Touba bëgg nañ jëlëf Jigéen ndax vraiment biñ ñëwee ba léegi nii képp kuñ ko wax da ngay am mbégte am kontaante euh, ci euh, jolof ci ngeen nga xamante ni moom moo ñëw gën a yaatal liggéeyam fii ci Touba ndax jolof ci ngeen dafa doon restaurant boo xamante ni doon fast food boo xamante ni ñëpp ko bëgg ndax ay mbiram yu rafet yu muy jaay lu ci mel ni hamburger ak lu ci mel ni nga xamante ni moom la ñuy wax sawarma vraiment seen sawarma nag nekk sawarma boo xamante ni ñëpp ko bëgg seen i amour ko tamit day dis gan waaye nag seeni i sànni su ko yéen moo xam ne yéen ngeen ko ndax dis gu mu dis kon nag vraiment tey kontaan nañ am nañ mbégte ñi waa Touba ñi dalalee ñi nga xamante ni mooy Jolof Chicken ànd ak équipe bu am solo ànd ak euh, ñi nga xamante ñooy équipe bi nga xamante ni Alaaji Yok Fall ñoom njaayloo ñi nga xam ñoom àndoon ah ànd ak euh, ndeysaan suñu gars yi nga xamante ni def nañ liggéey bu rafet ànd ak suñu caméraman bi nga xamante ni macha allah Mourtala caméra bi da koy naawal ci kaw bi di wër di def lu ne billahi wallahi wa taala foo dugg caméra bi daf kenn moom ci mim réew kon daal ñi ngi ñaanal Jolof Chicken suñu borom gën ko ful daf ko ay ay fast food yu bare bare bare bare ci dëkk bi ndax ñu bëri dañ doon jooy ci yokk faal naan duñu jaayoo hamburger duñ suur Jolof Chicken nag loolu naqari ko hamburger bu 1000 francs kilo la doo ko doo ko tegee liibaru mburu bi kilo la waaw du la euh, xaaju ginaaram rek daanaka du la ko joxe mooy ginaar gi lëm waaw ndax moom du xool ginaar gu feebar wala ginaar goo xam dafa sëy ba divorcé mu xool ginaar yu baax mu di ko defar euh, daal kenn moom ci miir alaaji yokk faal waaw jërëjëf Thioune kàddu yi rafet na loolu am na solo comme ni ma ko waxee rek mën naa ne liñ ciy teg du bari mooy ni Jolof Chicken euh, mbir la moo xamante ni si ne ñun ñëpp rek am nañ ci soxla am nañ ci yitte ndax nee naa la dafa nekkoon ci diwaanu Touba ci xayra ñu yóbbul ko ba Mbàkke Bawal ca ode kaaba Euh, def ko mu nekk place bu doy waar boo xamante ni si ne mën nga fa def sa réception mën nga fa def li nga xam ne moo di sa anniversaire comme ni mu la neexee mu nekk bërëb boo xamante ni tam bërëb bu luxe la waaye bërëb boo xamante ne si la bërëb bu doy doy doy doy waar la ñuy wax ñëpp rek ñi nga xam ne dañu ko daan topp ñi nga xam ne dañ daan dem foofu di fa reer jee di fa jënd ji seen ay bagage ñoog seen famille wala ñoom kase wala ñoom ak ñu daan àndal fi mu toll nii tembe ñi ngi leen yëgal nii jolof ci kat bi nekkoon ci xayra yóbbul na leen ko ci Mbàkke Bawal ca ODK ba na ko ñëpp yëg suba nag waa Touba nanu waaj ndax ñun ak waa Touba la jërëjëf cur bigit ndaysaan waaw alaaj Jok Fall ndaysaan jërëjëf ah, kaddu yi rafet na am na solo ndax yow da ngay influenceur boo xamante nii waa Touba gépp dañ lay topp ndax li gën a xale yi nga xam dañoo nekk tubaa féete ci TikTok bi vraiment ay xale yu jàmbaar lañ ndax duñu saaga duñu xuloo duñu xeex te ñu ngi bëggal askan wi. loolu moo tax tey waa Jolof ci kenn bi ñu ñëwee dañ ne dañu xool influenceurs yi nga ñoo nekk Touba ànd ak ñoom ndax duñ saaga duñ wax lu ñaaw waaw duñ dépassé kenn vraiment kontaan nañ baax kon dañuy jox Ablaye Naar la seen animateur la seen animateur. mu ngi doog a ñëw léegi Ablaye Mar la seen animateur du ko defee mu jàll ci ay kaddu ci liggéey bi nga xamante ne ci Chicken def na ko tey ak fi nga xamante wër nañ ko tey Alaay naar noo gisee liggéey ci Chicken seen fataay yi ñëpp ñu ngi koy kaas ndax nee nañ dafa baax te tamit ñëpp a ngi naan seen hamburger dafa baax te ñëpp a ngi naan li nga xamante ni mooy seen ab foo ko teg mu peese kilo Ablaye naar bisimilah. jërëjëf Alaaji Cuun Boutique macha allah kàddu yi rafet na bu baax a baax euh, di ziar Alaaji Yokku Fall ak Ndiaye Lo artistes yi nga xam ne ànd nañu ñoom tey jii ci suba si mu di samdi tey bile Jolof Chicken amal taxawaay bu am solo comme ni mu ko yàggee defee euh, fépp ci Sénégal mu war a jox bawal nag wàccuwaayam jox bawal gëddaam ginnaaw bi mu indee place bi nga xam ne moo nekk fii ci xayrab mu ni nag jot na bawal gépp maase gis seen bopp ci Jolof Chicken loolu moo di toxal bi nga xam ne moo nekkoon fii ci xayra yóbbu ko ci euh, ADK bi nga xam si ne moo nekk ci route nationale bi su ko defee waa Mbàkke Daaru Salaam Euh, Bofène Touba ñëpp gis seen bopp kooku mooy dëgg-dëgg Jolof Chicken Jolof kën nag ci gàttal mooy kan yaakaar naa mënul jërul ci ñëwaat parce que Sénégal xam nañ ko ci diir bu gàtt mu marqué empreinte am ba Sénégal yëpp xam ko loolu nag yaakaar naa liggéey bu ràññiku rek moo ko man kon mbokki Touba ak li ko wër Mbacke Daaru Salaam ci kën mu ngi noonu képp koo xam ni soxlaati nga ko jarul ngay dem xayra bi nekkoon xayra la ñu toxal indi leen ko ci EDK bi nga xam ni moo nekk ci route nationale bi macha allah ci Chicken ci anam bi nga xam ni indiwaat naa ko indiwaat na ko lu jëm ci restaurant moo di poulet pané yi naka nooy itam sandwich yi pizza yi fata yi sandwich yi ak yeneen yu mel ni ñoom waaye tamit li gën a neex Djolof Chicken cun boutique moo di boo amee événement mariage anniversaire baptême ak lu mu manti doon xeetu événement bu manti doon boo ko yóbbee Djolof Chicken soxol day sedd li ko waral moo di dañoo bàyyi xel ba bàyyi xel famille bi mooy képp koo xam da ngaa ñëw nekk en famille ànd ak say rek say doom say soxna ak say jarbaat nga bëgg a féexal sa xol rawatina muudu muudu boo xam dafa tukki woon ñëw bëgg a féexal xolam ak ay njabootam jolof ci kën moo ci gën ndax indi nañ salle yoo xam ni vraiment salle climatisée la ak yu mucc ayib yoo xam ni ma nga jolof ci kën mbokk yi ci gàttal daal jolof ci kën mooy lépp wax dëgg yàlla sunu xol sedd na bég na lool taw Tawfekh Production